Quotidien ne Serigne Babacar Sy Mansour danay wax ci gàmmu gi ci lu jëm ci wàllum projet de loi bi aju ci wàllum avortement médicalisé nee na nag loolee àndu ci tey àndu ci ëllëg ndax nee na loolee la ngir nag puus ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ci loo xam ne ak mbon la yéen kaay gi nee moom Serigne bi danay wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñaawlu na bu baax a baax violence bi nga xam ne moom la ñu nemee ko ci réew mi danay wax ne réew mi nag maanaam mënuñu ko tabax nga xam ne autorités yi ñu daal di bàyyi xel ba di xalaat ñi nga xam ne ñooy ñu pauvre ñi maanaam ñi nga xam ne dañoo ñàkk kilifa gi nee na autorités di leen xalaat bu baax a baax yéene kaay gi di Sud Quotidien xalif général des Tidiane nay wax ci nag ay sujet yu bare bare wax na ci lu jëm ci na ci syndicat yi wax na nag ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum avortement yéene kaay gi di Les Échos ak Rewmi Quotidien nee mi nga xam ne moo njiital mu sar si dina yi daat nay dellu si ci bàyyi mi nga xam ne dañu koo suuloon te tiwaawoon daal di koy sulli nee na loolee autorités yi ko def ci loo xam ne teguñu ko fenn moom sëriñ bi daat nay wax ne nag dina tabax nag daara moderne bu mag a mag nee na dana seeti sëriñ Muntaxa Mbàkke ndax nitu jàmm la yéen kaay gi dalee si ko nee na sëriñ Moustapha Sy ci gàmmu ren gi nag waxul benn yoon ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique ba pare na daal di samp doomam ji nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy yéen kaay gi di réew mi ko di jee nee na sëriñ Moustapha Sy doomam ji nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy def na ci moom ay témoignage yoo xamante ni ba mu pare nag sëriñ Moustapha Sy dafa daal di jooy jooy yu métte métti yéen kaay gi di réew mi ko quotidien nee na gàmmu ren gi ci diwaanu Medina Baye Cheikh Mahi Ibrahima Niass daat nay rafetlu bu baax a baax engagement bi nga xam ne jamono ji ndaw ñi jël nañu ko su dee nag ñi nga xam ne ñooy laayeen yi ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax fen yeeg kàcc yi nga xam ne jamono ji ma ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi ak nag soxor gi nga xamante ni am na ci ak nag manque de solidarité gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi yéen kaay gi de la Soleil nee na nag Medina Baye ñoom daat nañuy woowaat taalibe yi fidèle yi maanaam si njàngalem Cheikh Al Islam yéen kaay gi nee na xalif général des Tidiane na bu baax a baax li nga xam ne nag mooy réseaux sociaux yi ak ni nga xam ne bëri na ay njombe lool yéen kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu Serigne Moustapha Sy moom nag recevoirul coalition Yewwi Askan bii nga xam ne parti bi di pur sa la bokk waaye nag doomam jii di Cheikh Ahmed Tidiane Sy la leen boole la yéen kaay gii di Walf Fadjri nee na nag xalif général des Tidiane daan nay ñaawlu bu baax a baax njàng mu bon mi nga xam ne dañu ko nemmeeku ci réew mi ak système éducatif corrompu yoo xam ne yu tàng jër lay doona ndax nag Serigne Moustapha Sy ñëpp xam nañ ne gàmm bu jotaa maanaam discours bi mi def daal daana tàng jër jër jër jër waaye nag ren ji daal maanaam discours ba nooy na nepp yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ak L'As ak La Tribune xëy dañu xibaar naan ñu marine nationale teg na loxo ci biir géej gi drogue bu baree bari boo xam ne toll na si ñaari junni yu fegg ñaar fukk ak juróom benn ci ay kilo yéen kaa gi ne na am na lu toll si juróomi nit ñoo xam ne ñoo nekkoon ca bada boobee teg nañu leen loxo yéen kaay gi di Rewmi Quotidien Walf Fadjri L'As L'Observateur l'observateur daal di xëy ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yi nga xam ne ñoo ngi ci tudd ñaari député yi bokk ci benn bokk yaakaar journal bi ne na tey jii la ñu convoqué membre yi nga xam ne ñoo bokk ci commission des lois ak commission du travail ak commission des droits humains yéen i gi nee na la nga xam ne moo ko wundu ngir nag teg li nga xam ne mooy commission ad hoc bi nga xam ne moo war a nag saytu jublu ci li nga xam ne mooy levée immunité parlementaire député yooyee yéen i kaay gi da la Soleil nee na nag mbir mi jamono ji yàggatul tey ñu xam membre yi nga xam ne ñoo bokk ci commission ad bi yéen i kaay gi di vox populi nee na soxna Aïda Diallo jot nañuy xibaar ne dañu ko bëggoon a rey tentative d'assassinat waaye nag journal bi xëy na di laajte nee na nag tentative d'assassinat la maanaam dañu ko bëggoon a rey wala nag ay samba booy ñoo bëggoon a cambrioler li nga xamante ni maanaam nag moom mooy kër këram yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal daal wax dëgg yàlla li muy ñàkk nag ci kanamu Karim Wade bëri na ndax état bu Sénégal ñoom nag dañoo demoon ak Karim Wade fa mbaxa na doonee benn ca bëggoon a teg loxo nag compte bancaire yu Karim Wade waaye nag loolee ñi